bu assalamu alaikum Dakar assalamu alaikum, Sénégal donc ñu ngi am mbégte bu mag fii jàkkaarloog askan wi di euh, vraiment li nga xam ne moom moo xew fii ci terrain de foot bi nekk ci fédération football sénégalais. Sénégal. donc ñu ànd ci ñun euh, euh, des promoteurs associés donc, euh, Djabou Koulibaly, Madame Diallo, c'est elle qui a eu l'idée. Donc, associé ici, un tout petit peu avec toutes les populations d'Ouest Phare, également associé ici avec le promoteur événementiel euh, monsieur Mortal Mbeng taxaw nii di donc c'est vraiment un plaisir pour xamal Fi, ci Ouest Foire euh, organiser une ferme pédagogique donc foire des animaux un tout petit peu pour permettre aux populations vraiment nous savons euh, permettre aussi euh, population découvrir euh, les nga souvent souvent dans les parcs pour découvrir donc nous organisons pour permettre aussi aux populations vraiment de mëna dajé xam li nga xamanténi momo euh moo xew fi ci Ouest donc je me dis que tay euh, ñun en tant que acteur de développement ñun ñoo mëna défar suñu gox donc c'est pourquoi ñun euh, ñu associé wu ci foire bi nga xamanténi mom lañuy organiser fi foire des animaux di ci wo euh, waa Ouest Foire yëpp du 20 là au 27 du 20 au 27 Inch'Allah au rabbi donc nous leen découvrir ici. Pourquoi A xamante à euh, mon chance su jàkkaarloog yenn animaux ça fait l'occasion de ñëw jàkkaarloog yenn animaux yi donc euh, vraiment d'ici santal Boubach, la jeunesse de Ouest à l'occasion ils se sont associés vraiment pour nous, kenn nous connaît apporter ce soutien pour que le projet nous donc euh, lii moom mooy wan Ouest grandi limay mooy yof grandi limay mooy vraiment tey jii nii jël nañu suñu ay propre responsabilité pour mun a defar suñu gox parce que je crois kenn ku ne fa nga dëkk ya ko mën a defar te Ouest xam nañ ne war wi dafa yaatu parce que pratiquement mu ngi ci trois et quelques hectares loolu def ko defar ko du benn fan du ñaari fan moo tax ñun volet bi nga xam ne foofu lañ nekk muy le muy muy les événementiels matérialiser l'ensemble de ce qu'on a donc ñun ñu ngi ci côté bobu donc di wo secteur yépp ñu ñëw ci Je koulibaly madame Diallo promotrice de la ferme pédagogique du Sénégal ma ngi wo à Yoff de West Foire ak bép gox bu nek aux alentours ci projet événementiel bi ma commencé nek ci première édition ñu la ko ferme pédagogique du Sénégal. ferme pédagogique dafa un genre foire qui xamné ne façon mala bu né dañ ko fi exposer muy lama muy daim muy canard muy xaar muy bëy muy nag muy di leneen loo lu nit xalaatul ñu ngi ko fiy exposé ñu boole boolewaa ci boolewaal ci affaire environnement ak affaire agriculture mu nekk loo xam ne dañ ko créer pour permettre xale yi ak jeunes yi nekk ci école yi wala ci association yi wala ci ay euh, cadre structure extrascolaire pour ñu ñëw découvrir gis mais aussi jàngat ci mbirum thématique yooyu muy di élevage agriculture environnement nous avons fait West terrain de football de de bu Tatafa entre 500 francs Nous euh, ci découvert découvrir en famille luñ fait exposer. Andiatou Koulibaly madame Diallo promotrice de la ferme pédagogique du Sénégal Je ngi woo à Yoff West Foire aux alentours ci projet événementiel bi ma commencé une première édition de la ferme pédagogique du Sénégal.

Euh, cadre de structure scolaire pour nous découvrir gis mais aussi qui ci mbirum thématique yoy muy di élevage agriculture environnement nous avons ko Ouest Foire terrain de football de Tatafa entre 500 francs euh, di ci wo ñëpp nak ñu nous découvrir en famille luñ fait exposé